lu jaaxal ñëpp moo am démb Ousmane Sonko ñene woon du bokk tey ji rus nañu waaye nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi maître Bamba Cissé wax na ne Ousmane Sonko ñu jox ko fis ak ñu ñàkk ko jox fis ñoo yem Ousmane Sonko daal éligible na te électeur la te day bokk ci course bi maanaam élection 2024 mbokk yi ñu teewlu maître Bamba Cissé. donc juge bi li nga xam point de cassation bi nga xamante ni. Euh, mom moy problème mom mo don problème bi régler nako actuellement Ousmane Sonko fiche ak ñàkk fiche yëpp li am solo moy Ousmane Sonko réintégrer nañ ko ci fichier électoral bi té ku ñu ci fichier électoral bi fekk ca gannaaw ñu xañoon la say droit kooku conseil constitutionnel day décider du won ci yow parce que ñi la ko ñi la ko def ñoo la ñoo la tooñ manam ñom ñoo la gën il a toujours été sous Ousmane Sonko amati nandam ndam lu reuy lo xam te Macky Sall ak wa kër ñak jàmm duñu nelaw. ndax it ñoom saa su nekk ñuy ndëgg sërëxal Ousmane Sonko ñoom bu dee kàmb la ñu gas ko bu mu xóot ñoom ñoo cay tàbbi yóbbu ko jigéen Ziguinchor mu am ndam indiwaat ko Dakar mu am ndam deux yoo xamante ne dafa mel ni comme ni ko maître Clédor Ciré Ly waxee ne Ousmane sunku daal bu doon bëree làmb la daan na Macky Sall jël bu set wecc